Karim euh, Seck moom moo ñu nekkal ci euh, tali bi duñu xoolal euh, luuma xar yi njëgu xar yi fan la toll alaaj njaga mm-hmm. dafa mel ni xar cher na lool surtout xaru yar waaw xel na dal nag mm-hmm. xam nga problème mooy xar dina bari lool alima mm-hmm. dina bari lool gis nga non seer gi mooy ku yor ñaar fukki junni dina seer ci yow c'est-à-dire que da nga boo yoree ñaar fukki junni da ngay dem ci pël-pël yeeg ci xarum ci xarum daral yi mais yor mbote ñu wanee ne quatre vingt dañ koo yar xarum yar la xarum yar la. loolu 40 000 sax non xarum yar la. Ah. maanaam nit ku nekk rek di nga nit bu yàggee ci marché moo fa yàggal boppam. boo yoree ñaar fukki junni fukki junni ak juróom dangay dem ci xaru yi nga xam ni ñoo jógee ca Mali ci xaru daral yi nga dem waxaale fa mais yor ñaar fukki junni di wër xa mbaaru mbaaru mbaaru mbaaru xarum yar yi te naan xar-xar seer na si xar dina seer parce que la nga yor gars yi duñ la ko jaayee xaru yar mais xar dina dina bari te dina sakkante dina yomb. ku ku nekk bu xamee fa muy jëndee xar nañu xam fa ñuy jëndee xar rek. Safia mbaa di nga tabaski jigéen ñi dégg naa dañoo war a tabaski ku ko mën te yéen mën ngeen ko waa seen TV waaw waaw ku am salaire da ngay da ngay da ngay jënd xar mooy yoon bu fekkee da am xaru 50 comme ni ko Ndiaga waxee nga jënd bu 50 bu 100 bu 200 bu 300 ba keroog sa doole sa doole poste muy àndal père sax mën naa jënd xar waaye xam nga moom ah bu yomb bi lay xaar ku ko alima yooyu yëpp day wax rek li ko neex hmm. waaye am na xar yoo xam ne hmm. am na ñoo xam ne hmm. lu mu am am fit ñemewuñ ko yóbbul jeeg banu ba ca kër ga ñemewuñ koo jëkkal jéeg ba ci kër ñemewuñ koo yóbbul jeeg ba nu ca kër ga. daa fekk sa jeeg ma la wax de lu am la léegi xam nga lan la ñuy def en attendant loolu daan ci ñëwaat de toute façon incha allah <laughs> affaire xar moo jóg ko jeeg gi de ñuy wax ci maraboutage la ñu ngi wax euh, maraboutage merci beaucoup Mbaye Karim alors Safi dañuy tànn euh, euh, kenn ci internautes yi daal di koy teral ñu ngi àndandoo ak Sendwave mi nga xamee ni moo gën transfert d'argent bi gën te gën gaaw gën yomb waaye itam ñu ngi àndandoo ak Expresso àndandoo itam ak Gam Pack Food tabaski vinaigre pack food ak moutarde pack food euh, moo gën ci marinade yi am na ci boutique yi marché yi ak grande surface yi fu ngeen dem mën ngeen ko am euh, ñu tànn benn internaute daal di koy euh, teral ak sendwave kii nee na Adja Kébé Tall mi nee na moom nag deful numéro am xanaa ñu xool keneen mhm. kii Ngañ Jaañ la tudd mhm. Ngañ Jaañ nee na ah, nee na ngoon gi neex na lool mhm. voilà ngoon gi neex na lool na xéewal yi ñëw alors ngañ euh, xéewal yi ñëw na moom numéro téléphone am di 78 374 44 ak li ci topp ngañ euh, ànd nañu ak seen wave may ko 25000 en attendant euh, xaru tabaski itam mën ngeen continuer di woote ci téléphone bi bu ko defee yéen itam ngeen daal di mën a am ci teraanga yi d di séddale Safi. ah. ah léegi Kande waaw yéen di gis bokku waaw waaw Koungheul. weddi gis bokk ci Benoît. non Benoît weddi weddi. waaw non non gis bokk ci. Eh, eh, eh, ma ye <laughs> weddi moom gis bokk ci. Bakary. weddi gis bokk ci. Kunkande fay na lamp yi yaa ne woon sànq na fay lamp yi. nga xam nga xam man daal moo bëgg nga xal butéel bi. pour pour pour ah, pour ñu wax Safia ah. xam nga. est-ce que doo dem ba ca bis ba naan sama kilifa nee ma sama waxtaan sama kilifa loolu koo kaase ngeen wala jël yoon wala maanaam nga layalee bisum tam xam ah, na ko nekk nga tey euh, sànq bi fan la dama la ne sànq ma ne la événement la boo xam ne xam nga tey ñiiti réew yi am na ñu fi toogal maanaam mooy préfet bi. waaw. ñoom bu ñu kàccoon ne maanaam tey suñu ndox bi dafa am domaine si domaine la bokk sax doo fi xar géej gi man danaa fexe maanaam ba xar géej gi jàmm yàlla gis ko teg si seen bopp. waaye Koungheul delluwul ginnaaw. waaw lii moom mooy lan. même bu dee nanguñu sax ñu ko xaree fii Ndakaaru. waaw danaa dajale yi. waaw ñu jël maanaam ba ba ba bada bi jaw complexe Castel. waaw ma fay maanaam solo bi gars yi ma jàllale ko ñu dem ba gore ma xar géej gore gi. dëgg la. waaw li ko mën moo tax. xam nga loolu man maay fanaayil maanaam salope bi man maay daggal ticket sénégalais yépp chaque jour muy yab di yabal sénégalais ñu jàll gore maanaam su ma ko mëneewul xar su ma jur mën naa xar gore ma xar ko xar papa Ndiaga dafa mel nee nañ ma sa micro moo fay voilà le fu ñu ñëwaat Safia moom dafa am page euh, YouTube ak affaire yooyu. ah. da koy xaar. ku dafa am page da koy xaar da am page YouTube foo xam ne dañ la fay suivre wala dara. waaw am naa ba ñuy wax Kounkandé TV. ah dañ la fay suivre. boo amee vue yu bari dañ lay fay. bon man nag yooyu xam naa staff yi ñoo koy faral di ñoo koy gérer daal. ok Kounkandé dafa am staff. xam nga bu ñu bu ma ñëwaatee si thème bi même boo demee si mbër yi li ñuy wax ay mbër bi dafa am sëriñ bu baax a baax non mbër yi xam nga lan ban mbër mooy daal mbër bi nga xam ne entraîné na ba taxaw wóolu boppam li si des ñu ñaanal ko mais benn sëriñ taxul Balla Gaye man ma toog nii Balla Gaye tëdd un an man ma nekk di entraîné di def lu nekk su ma ñëwee ba sa combat ba dañ may rey yaa ma dégg donc mbër bu fi xam ne wóolu nga sa bopp si sëriñ bul entraîné lu tax nga gis mbër yi di nekk si si suuf si di xar seen tànk tubéy pour jàpp forme pour mun a ñëw dëkku loolooy wone ne que sëriñ yi. defuñu loo loolu ñu bëgg ñu di ko boole ak sangatu. ma ne toog deux heures de temps di ah, ko may nag ma ne gis nañ fi ñoo xam ne fii Sénégal benn xale bu ndaw ñëwoon na fi sénégalais yi ñoo def loolu seen bopp te nañ ko bàyyi bu ñu bëggee sañu réew avancé xaw ma Cheikhou Chérifou ñëw fi sénégalais yi mel ni ay yamba di topp koo xam ne dara xamu ko. yaa may de ma gis nañu keneen koo xam ne toog na fi gis nañ fi keneen koo xam ne yaa may dégg effet e bee la gis nañ fi ñoo xam ne toog nañu ne dañuy def dañuy def dañuy def dañuy def sénégalais yi di fay rang ay quatre heures du matin muy récupérer xaalisam fan la ñu mujjee dara defuñu ko fi donc man li ma gëm mooy ñaan am na am na yoo xam ne bokk na si sañu réew mais kuy tëkku yàlla dina dem kuy tëkku borom bi kuy tëkk borom bi dina damay def lii day am par force si yenn yi tëkku borom bi la waaw yenn yi tëkku borom bi la